jaxatu lépp luy xeetu léjum baaba mu ngi ko béy benn teen nag la yore te teen boobu si la ñuy fóotee si la ñuy naan si la ñuy arrosé li gëna a sax si mbir mi moom mooy condition yi nga xam ne moom lay arrosé ndax sax soxna yi ñoo koy jàppale si liggéey bi ak dëkkandoo yi nga xam ne nag may na leen fa ab xaaj boo xam ne ñoom itam si maraîchage boobu la ñuy yëngatu moom nag du yendal du fanaanal ndax nag nag yi bàyyiwuñ ko si ak xar yeeg béy yi ba tax na fii lay yendu amatul benn activité bu muy def lu dul jardin bi collectif bi mu am baax na waaye nag bëggoon naa am beneen buggeen bi ndax mbaal yi ñuy nappee jën sax la mujj dem uuti clôturer ko li nga xam ne moom mooy jardin bi ñàkk moyen moo waral li yëpp jardin bi nag mu siy dund di siy faj aajo yi ma ne tungu ne daal du teew ñu koy nataal message bi nga xam ne moom la ñëpp di waxtaanee nañ leen dellu si tool ya waaye di béy li ñuy dundee moom fekk na ko si waaye nag mosuta am ku ko jàppale si mbir mi wéet na si lool nag moom nag moo ta xelaat pour tukki wala sax doomam tukki nee na xel xelaatul ko ñu déglu kii di baaba jërëgeen jëf mbokk yi ñuy seetaan si Sokone TV tey jii nii nag ñu ñëw Kër Sambare Kër Sambare nag euh, mu nekk dëkk boo xam ne dëkkub cosaan la waaye itam dëkk boo xam ne culture la ñuy dund bi ñu ñëwee nag euh, ñëw nañ ci ki nga xam ne moom moo nekk baaba ndax nag moom won na euh, sénégalais yi ne leen Barça wala Barsax rey sa bopp la suñu suuf si nii dafa riche lool ba tax na tey jii nii moom mu def jardin boo xam ne si maigre moyen am Baba ñu bàyyi la nga nuyonteeg askan wi. waaw maa ngi nuyu askan bi. man daal euh, gëw ma Barcelone gëw ma man lii laa gëm ñëw dama ñëw clôturer suma tool demi hectare ñu ñu investir ay fii di fi bay ay tamaate ay kanja lépp parce que gëw ma Barsax dem parce que dama jàpp na suuf bi tey su ma ko exploité dinaa ci ci am loolu te dinaa ci mun a dundal suma njaboot te dundal naa ci suma njaboot maanaam commencé di récolter may ñaan ndimbal aussi tamit damay root damay root aw aw ma mbalka maa ngi ñaan képp ku xam ne mun na may jàppale na ma jàppale ci grillage euh, ak ak ak kii teen wàllu ndox parce que damay root dama damay root bon ku ma jàppale ci moteur ma gën a kii parce que dem naa boo suma entourement gars yi ma leen di encouragé ci affaire tool yi léegi tool am naa dix personnes yu nga xam ne dugal na leen ci ci tool bi ñoom ñoom tamit ñu ngi ciy liggéey di ci njëriñ njëriñu parce que man dama ci gis avantage mais moo gën nga ne da ngay dem gaal ba dem barsak wala barso solo loolu amul sens lii moom moo am sens ñoo toog sa sa réew liggéey suqali sa réew parce que tey man man ma ma maa ngi suqali Sénégal parce que dama tam man maa ngi soxla tey su amee gan dama koy utile tamaate jaxatu bu lépp mu yóbbu sëriñ ca kon kon tey ma maa ngi def fii te lii laa gëm man man tamit lii laay gëmloo ñëpp na xale góor yi bàyyi dem barsalon wala barsax nañ ñëw exploité tool yi liggéey man li li laa gëm. baaba euh, tey jii nii yow euh, amoo benn financement si sa moyen bopp nga ko defee. aw ma benn financement man maa dugg ci àll bi kaddu suma semiñ gor bant ñëw dem tefes ut mbaal ñëw clôturé mbaal yaa ngi gis fi laay yendu sax. boo xaaja guddi parce que aw ma aw ma moyen mbaal laa ko def parce que tool bi amul clôture parce que jur yi koy bëttu nag yi di koy bëttu mais nag fii laay yendu dama tuma fen parce que dama dama gis njëriñ may ñaan ndimbal képp ku xam ne mun na may jàppale ci ci jël ko bu bu suma gaay ñoom Ibrahima Sané maa ngi leen di ñaan dimbal yàgg na di may dimbal mais nag fu dama bëgg ñu gën may jàppale parce que dama bëgg a liggéeyal sama sama bopp parce que nit ki di koy may jën da koy jàngal nu ñuy nappee jën ko nag fu ñu man damay napp naa jën fu damay jàngale nu ñuy nappee jën parce que maraîchage bi am na chance dans le sens Baba tay no TV micro déplacé wu ñëw ba fini ce Tan dëkk la fi si biir dëkk bi si liggéey bu rafet bi ngay def si lepp lo développement la. waaw ma ngi TV vraiment parce que gërëm parce que nous ñom tamit ñom li parce que ñom nous pour pour pour wane askan bi xam ne lii mu muy suñ waru gaal parce que aussi tamit nit war ta war départ si ne da ngay dem gaal da ngay dem liggéey te li liggéey baa ngi nii fi maam Kéré man ñaari jabar laa yor ay doom ah, ma ma ngay quinze personnes mais lépp si laa leen di defal école si si laa leen di def te lekk bu baax laay lekk kenn xamul ba daal si laay jëndee su suma télé ci ci affaire jardin bi di tëddal te damay am ay gan ñu may wax seen soxla ma ma koy faj te faju ma ma ko ci dara su tool bi la la indi naa fi jigéen jigéen ñu ñu fiy béy ci biir tool bi fii de nga parce que jigéen ñi xam nañ lu ma ci récolté mais nag moyen bi bi nag moo des parce que amaguma benn financement di sooguma kenn ku ma jàppale damay ñaan dimbal pour gaayam parce que tool bi yaa ngi koy gis mbaal euh, lañ lañ ko clôturé fi lay yendu guddi bi damay génn bu ay mmh. guddi bi damay génn ay guddi bi du ma nelaw parce que su ma nelawee nag yi yàq tool bi fi laay yendu su ma xëyee fi laay roose fi laay yendu boobu minuit minuit lay lay kii nekk ci kër gi damay fanaan di wóor tool bi parce que su ma moyen des na parce que giraa tool bi mbaal la xam nga bon mbaal la te bëgg naa ko parce que moom laa gëm gëw ma barsax wala barsaxo te te li laay wax askan bi na askan bi ñëw ci ci tool yi wàcc terrain ñu liggéey tool yi jërëjëf kaddu yooyu noonu ngeen déggoon nekk mu nekk euh, Baba euh, nekk fii nga xam moom mooy Kër Sambare si région de Fatick département bu euh, Foundiougne ci commune bu Nioro Alassane tey jii nii nag Makayre Ndiaye ñëwoon jël si ko si Sokone TV ñu ngi leen di sant